الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال وهو أصدق قيل وقال وهو أصدق قيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين رب اشرح لي صدري ويشر لي أمري وعل عقدة من لساني يفقع قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala ci ngëneelam ak tawféexam ak ndimbalam minu mayaat ak wér ba ñu toog fii di ko sant ñu ngi koy sant moom suñu boroom moomu di ñaan teraanga ak mucc ak jàmm mu defal ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbokkam ya ak saxaabaam ya ginnaaw bi ñu ngi fas yéene nin ko baaxoo daan def ci at mi dajawaat fii ngir ay yëg-yëg yu ñu am ak ay cant yu ñu am lu tax ñu koy jàpp ñëw fii toog fii di sant waaye balaa loolu it ñu ngi sant mbooleem kilifa yi nga xam ni teew nañ fi ñëpp Euh, buñ ci jiitalee sëriñ bi ak ay mbokkam yi nga xamee ni ñoom ñëpp teewal nañ ko ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaaro di leen dalal ak jàmm waaye di nuyu sangam yu tedd yiit euh, buñ ci jiitalee sëriñ Mouhamad Mbakke moom sëriñ Ibrahima di wasila sëriñ bi buñ ko nuyoo mu yóbbaale mbooleem mbokki kilifa yi fi teew yëpp waaye naka noonu it ñu ngi nuyu mbooleem dëkkandoo yi fi teew muy góor muy jigéen jóge ci barab yu fasantikoo yépp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm di leen wax ahlan wa sahlan wa tarxiban bilaa adad ginnaaw loolu comme que waxtu wi danoo xaj danoo xaj dañuy wéy rek ci programme bi nin ko bëggee woon te du dara lu mooy ay kàddu yoo xam ni des na ko bëgg a jooyal balaa loolu it Euh, danañ jox sëriñ alxaaji soirée benn xasida goo xam ni da koo defoon ci mbokk donga yi ngir nuyoo leen ko waaye buñ ci jógee dinañ jox sëriñ Mudu Mbàkke Maamudan euh, kàddu donga yépp ci kanamub sëriñ bi te mooy kalimatu shukru mooy cant goo xam ni yëg nañ lum ñu defal ñu koy sante yàlla tax ñu daje fi waaye buñ ca jógee dinañ jox sëriñ alxaaji tamit mu defaat ak xasida gog دنا جمتي انما المؤمنون اقوى وتعاونوا على البر والتقوى بو نوبيت بغ نان جوخات سيرين مختار مينو فيغول مو ام بن توم بوب مبوكي دونان نان كو ساكو بو غات جمتي آه، وارتيف يي اديو تي دونغا بي مو وار كو خام موي وارتيف يو اديو تي دونغا بي اك اب بنو بو نوبي ني كونتينيه اللي ليغي بي ان شاء الله ربي kon balaa loolu rek dañuy fàttaliku mbokk yi danoo waxoon bu buñ teewee ñu fàttaliku mbooleem ñi fi nekkoon daan ànd ak ñun liggéey bi ba wuyu ji suñ borom ba fekkewaatuñ ko loolu buñ leen limee bari na lool ak mbokki waajuru donga yi nga xam ne daanan fi teew di ànd ak sëriñ bi ak donga yi liggéey bi te yàlla dogal ñu jiitu ca barsàq ya ahlal quraan antum ahbaabu rahmaan antum aadaau shaytaan sëñ alaaji nee na mu ngi leen di dalal ak jàmm yéen mbokki donge yépp di leen wax dal leen ak jàmm yéen ñi nga xam ni imaan bu fekkoon daa am aw ñoñ yéenay nee na yéen ñoñ alquran yéen ñii yéenay ñoñ imaan nee na kon daal texe ñeel na leen nee na yéenay soppey suñ borom subhanahu wa taala ni mu ko waxee ci hadisu xudsi yu ba waaye yéenay nooni shaytaane laazimtum darsal furqaan fa sabaqtum kullal aqraan kuntum axyaaral jiiraan bi kitaabi shatuuil burhaan nee na yéen ñi nga xam ni yéen a jaayoon seeni guddi seeni bëccëg taqoo téere bi yàlla bi subhaanahu wa taala te mooy alquran nee na ci sababu loolu kat ci ngeen jiitoo mbooleem seenu maas nee kon ay tànneef ngi noonu ñoo xam ni mbooleem xeet wi ñoo ci gën a tànneefu bi yalla suñ borom defé alquran bokk li gën doon li gën mu wacce ko ci yonenté bi gën ci yonenté yi waye mu waccat ci aw xéetam ñu ña gën ña jang alquran buñ ci tànneefuwaat nee néna kon mu ngi leen di dalal ak jamm yeen ñi nga xamni yeené yéen ay tànneefu xeet kullum humumihim quranu ilahi lmannaan tarakul aba wa ikhwatahum baadu an ummin hannan nee na ay gore ay sang ngi noonu yu tedd lool yoo xam ni benn objectif rek lañ am muy benn yitte te mooy nu téereb alquran bi ñoŋe ñu koy jàng ak di ko jàngale ak nun mën a fexe ba mu tas nee na kon jar ngeen njukkal nee na mu ngi naan leen dal leen ak jàmm yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi woon seeni baay wan leen ginnaaw bàyyi seeni mbokk wan leen ginnaaw wàcc seeni waajur wi nga xamoon ne amoon na ci yéen aw ñeewant wan leen ginnaaw ngir dërmal téere boroomam bi

qad daaxu xulwata alquran fa bihi naalu xayra sha'an nee na mu ngi leen di dalal ak jàmm yéen ñi nga xamee ni da ngeen a toggoo woon ay njàqare ak i tiis njàqare ak i tiis yoo xam ni doggul woon benn yoon nee na ba ca gën na tuuti rek mooy waa sori gi nga sori woon seen dëkki maam ya waaye mu ni ay sang ngi noonu yoo xam ne danoo mus neexiiti alquran mu neex nungootuñ koo bàyyi waaye ci loolu ci lan amee mboole yiwu àdduna ak alaaxira ahbaabun xurrun axyaar nujabaau aabaari zamaan aamaalul ummatin xad xuliqat bihimu humul ixsaan mu ni cay gore nee na ay sang ngi noonu ay soppee ngi noonu ñu tedd ñoo xam ne ñooy tànneefu xeet wi nin tànnoo de buñ ko doon misaal ci am ndox ma ni la ñooy ndox wa ca gën a neex te mooy ndoxum keneen nee na ñoom day ñooy mbébétu xeet wi xeet wépp day ñoom lañu yaakaar bépp tiis woo xam ni dal na leen wala lépp lu dal ci seen kaw seen xel du dem ci kenn ku may ñooñ alquran nee na kon daan yéen humul ihsaan yéenay ñooñ rafetal aslih rabbi rabbiya ixwaanahum waltansurhum bil asbatahum turran fi hadiyin wa tuqan wa tabaaduhum isyan nee na yéen ñooñ yéen ñooñ alquran sëñ alaaji nee na ginnaaw bi mu leen tatagalee ba noppi nag kon yayoo ngeen njokke ndokkeel yayoo ngeen ñaanal nee na mu ngi leen di ñaanal suñu boroom yéwénal seeni mbir biir ak biti te mbokkoo gii ngeen jàpp nee na mu ngi ñaan suñu boroom jàpp ndal ko lool te dëgëral ko te bu mu dakk mukk nee mu ngi leen koy ñaanal ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam mu ngi bokk ci àddinaan ya rabbi salli ala habbin nadbin muxtaari rahman يا رب سل على حب ندب مختار الرحمن واي نانا تاميت ليمني اثبتهم ترا في هدي وتقا وتباعد عصيان موغي نان سوني بروم ساخال لين يي نيون القران يي نييب تي اك نجوب تي موي صراط المستقيم واي نانا لين سوني بروم اك راغال يالا نانا لين سوني بروم اك موتيو فاو نانا موغي نان سوني بروم دولي صلاه وسلام سوبي با تي موي ينتبي صلى الله عليه وسلم اك مبوكام يا اك صحابام يا فاو allahumma salli ala sayyidina muhammad yiw ci aw xeet day da leen di booleeg ñooñ texe rek wala mu defal leen jëf juy sabab ak texe moom la waykat ba waxoon bu séer yi wa ida saqara allahu unaasan li shaidin fa innahum shuadaa kon daal daara jaa ngi noonu la sëñ Fallou daan wax daara di dara ku koy dar di dara ku ko noppee dar dootoo dara ña ko daroon ba dem seeni kër baay ñoo fay dara kon ñu ngi lay jaajëfal ci xasida gu nga defoon ci mbokk donga yi ginnaaw loolu danañ woy jox sëriñ Muudu Mbàkke mi nga xam ni moo yor kàddu donga yi jëme ko ci ak cant ndax li waral jotaay bi mooy yëggunu yëg sëriñ bi tawféex gum ñu defal ngir ñu ñëw daje fi ngir sant ko nga xam ni jotaay bi rek dafa firndeel boppam képp ku toog boo ne jàkk jotaay bi dangay gis jotaay bi am ay làmmeñ yoo xam ni da koy sant ndax àjjana dañuy wax ni euh, saa yu ne rek day wax ñett ñoo xam ni day am ak cofeel ak nammeel goog dali day bëgg jëm ci ñoom ñetti ñoo ñu bokk na ci yàkkamti leen mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa saxaabayhi te mooy euh, omar ak abi bakar waaye da teg wa amil al quran mooy ki al quran kon ki la defal loolu yaakaar naa amoo ak fayam daan taqoo yow ay ati at benn at mu ne 365 euh, jours mu daan taqoo ak yow guddee ki bëccëg naaja ki taw xàmmewul jant bu so xàmmewul bëccëg daan taxaw ngay feebar muy sonn ci yow te say waajur sax du ko yëg daan ñu taxaw taxawaay boo xam ne nag yayoo na ko ñu sant ko te moo tax lii mënta ñàkk lii ñuy defit suñu bopp lañ koy defal waaye du sëriñ bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni nit bu la defalee njekk day bëgg nga feeñal njekk la bam ba ba yëg ko kon inna allaha yuhibbu uh, yuhibbu uh, asaara niama min abdi nga xam ne day bëgg jaam bi bu la defalee njekk rek nga feesal njekk la ba ba mu leer te jotaay bi yaakaar naa firndeel na ko kon sëriñ bi danoo daje tey ngir sant أجمعين واجعل إشارتي كصيغ تربية واجعل هبالتي كصيغ ترقية بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أبنى سنتي برم سبحانه وتعالى من من خيول الخيول بريكي دي جلة أبي ينتم صلى الله عليه وسلم من من خمنة ما يجتال خيول بريكي di sant sunu yaakaar Sayful Xadim di ci jiital kilifa yi buñ ci tuddee sëriñ Muhammad Mbakke ak rakkam sëriñ Jiili ñu yobale mbolem kilifa yi di beral nak cyant ak nuyo ak siyaara sunu kilifa bop ndax ñom ñoy kilifa waye ñun moy sunu kilifa ndax sallallahu alaihi wasallam mo ñu wax ne ku len xamal ben araf sa kilifa la kon serigne Muhammad ak serigne Jili ñooy kilifa ak sëriñ moor waaye ñun sëñ moor mooy suñu kilifa ndax waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ju am solo jooju nga xam ne waxoon nañu ko kon ñu ngi koy beral ab nuyoo akub siyaar boo xam ne mi ngi jaar ci suñu làmmiñ te jóge ci mboolem mbokki donga yi nga xam ne ñoo mos a jaar ci daara ji moo xam ñi fi teew moo xam ñi fi teewut moo xam ki ci mag ba ki ci gën a doon tut tànk moo xam ñi fi jóge moo xam ñi fi des kon nuyoo la boo xam ne nuyoo bu matale la ak siyaar bu matale bàyyoo ko ci ay mbokk donga jëme ko ci seenub sëriñ kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la ndokkel ci jotaay bu tedd bii di la ñaanal suñu borom guddal sa fan ak mbooleem say kilifay bopp yi nga xam ne teew nañ fi ñenn ñi ci kilifa wàllu derat ñu ne sa kilifa ñenn ñi ci wàllu mageel ñenn ñi ci wàllu kilifteef ñenn ñi teew fi ngir ay wëllëre ñenn ñi teew fi ngir ay xarit ñenn ñi teew fi ngir ndokkeel si la ci bis bi ak bokkalewu bis bi ñoom ñëpp ku ci nekk fa mu nekk jàppal ne nuyoo bii ñi lay nuyu mi ngi bàyyi ko ci mbooleem mbokki dong yëpp fekk la fa nga toog di la wax asalaamaaleykum ndax sëñ moor ngeen ñëwal waaye donga yi jàpp nañ ne bis bi ku ci teew ñoom nga fi ñëwal ndax bis bi du bisub sëñ moor seenu bis la ñoom kon nee na ñoom ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare ñëpp di leen jaajëfal ci jotaay bi di bég lool ci teewaay bi kaddu yi ñu yëkkati nag kaddu yi sant lay doon ni ko sëñ Mouhamad Bane waxee léegi waaye kaddu yi feeñal mbégte mu bàyyi ko ci jëmmi doomu aadama joo xam ne xam na ne ñëm jëmmam jëmmi doomu aadama caa def loo xam ne lott na ci moom mu defal ko boppam moo tax mu ñëw tey di ko sant doomu aadama ju sant mbokkum doomu aadamam nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko digal moo nañu ku dul sant nit du sant yàlla man lam yaskuru naas fala yaskuru llah kon moo tax ñu jël sunu sant ngir jëme ko tey ngir sant si la ngir ndokkeel si la di xam ne cant gi li ci gën a neex ñi ngi koy defee ci béréb bi gën ci béréb yi di ko fekk si ki gën di ko ko defee ci moom ndax loolu it fekk ki gën di ko defee ci moom ndax sallallahu alayhi wasallam moo ko wax fekk it béréb bi gën ci lañ fiy defee di ko fi defee mooy béréb bi nga xam ne mooy bérébu alxuraan bérébu alxuraan moo gën bépp béréb bu bérébu alxuraan alxuraan bi muy jàngale moo gën lépp lu dul alxuraan ki koy jàngale moo gën képp kudul moom alxuraan moomu mi ñu fi dajale njëkk ñuy jëm ci sant dañuy xam lim ñu dañuy wane lim ñu defal bi ñu waxee lim ñu defal yéen ñu teew rek da ngeen xam ne ku leen defal lu toll nii yell na ci ñu sant ko lim ñu defal mooy dañoo jàngal loo xam ne moo ñu ràmm ràmm suñuy waajur ràmm ci boppam bis ba ñu ñëwee rek ci la fàggul loo xam ne ci la ñu ràmm ràmm ci suñuy waajur ni ko sëñ Mouhamad Baan waxee di bayit bu siiw boo xam ne ñëpp koy wax ca Masaalikul Jinaan loolu firnde la ci beneen bi ci des lim ñu defal mooy li nga xam ne moo gën ci lépp ku ko am yaa gën ku ko amul ku ko mokkal yaa gën ku ko mokkul ku taqoog moom yaa gën ku wut ak moom béréb bu taqoog moom béréb buñ koy jàngee moo gën béréb bu dul moom alxuraanu alxuraan mi nga xam ne sunu borom bi subhanahu wa taala moko wàcce ci yonenti bi gën muy sallallahu alayhi wa salam jaare ko ci yon ci malaaka mi gën muy sayyiduna jibril alayhi salatu wa salam wàcce ko ci weer wi gën muy wëru koor waye nak wàcce ko ci jëm yi gën jàppal na xol bu dekkale alquran bokku na ci xol yi gën ci kaw suuf jëm yi dekkale alquran moy jëm yi gën ci kaw suuf alquran mi mu def ci ñun moy li nga xamne sallallahu alayhi wa sallam neena ku ko jàng ku ko jàng alxuraan ëllëg yowmal xiyaam moom moo lay ram li mu def ci ñun mooy li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu doon wut famille bu muy bokk maanaam bu doon wut ak kuréel gu muy boole boppam kuréel gu alxuraan ci lay boole boppam kon ñun yonent bi sallallahu alayhi wa bu doon wàcc ci suuf suuf si li yaatu yaatu kuréel yi di bari métier di bari sunu métier lay jël sunu kuréel ci lay boole boppam muy ahlul quran ahlullahi wa xaasha mu def si ñun li nga xam ne ku ko jàng mucc ku la ko jàngal nga mucc ku ko jàngal nit mucc muy alquranul karim mooy li nga xam ne li mu def ci ñun yelloo na lu ñu amoon jox ko ko lu ñu xamoon ci lu baax wax ko ko lu ñu amoon ci luy teraanga ñu defal ko ko li mu def ci ñun mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne képp ku ko mokkal ëllëg yowmal xiyaam da ngay dem ci àjjana gën a kawe ndax dañ naan la taril nga yéeg comme ni nga daan tare ci àddina ngay tari tàmb alif lam mim di tari ba yéeg ba yéeg ba minal jinnati wa naas kenn du la gën a kawe mooy li nga xam ne yéen waajur yi nga xam ne teew ngeen fi te seeni doom jaar ci te mokkal ko wala ñu am ca lu ñu ci am sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg yéen dañ leen takkal ay médailles yoo xam ne fu ngeen jaar ñi xam ne yéen da ngeen a amoon doom yoo xam ne ñoo wattu téere bii mbaa waxuma sax ci doom yi waaye waajur yi sax dañuy bokk ca teraanga jooju li mu ñu defal mooy li sëñ Tuubaa di wax ne mooy sama alal mooy sama koom mooy sama lépp sunu borom bëbbal na yiw woo xam ne dëkkaale ko ci bépp xool boo xam ne dëkkaale nag alxuraan alxuraan mi sëñ Tuubaa waxoon ne mooy sama magasin mooy sama alal mooy sama lépp mooy sama soppe mooy sama docteur mooy sama lépp tàgg ne ko ci béy yu baree bari yoo xam ne jëru tudd ndax mbokk yi bare bari xam na ko kitaabuhu xasinati wa yi wa fayduhu jalla li jaar jaari wax ko yaa kitaabal karim anta habibi wa xalili wa xablu kunta tabibi ak bayit yu baree bari yoo xam ne sëñ Tuubaa wax na ko li mu def ci ñun mooy li nga xam ne ku ko mokkal bokk na ci li borom yi wax ne suuf du bokk ci ñi muy rappal seen jëmm maanaam ku mokkal alxuraan yaakaar naa teraanga ju toll noonu kun ko defal yaayoo na ci lépp alal joo am nga joxe ko jëpp teraanga joo am nga joxe ko li mu def ci ñun mooy li nga xam ne sëñ Tuubaa nee na ku ko mokkal mucc nga te ëllëg da nga dugg ci gaal gi nga xam ne gaalug way mucc ñi ca la ca la ca lañ ca la ñuy dugg li mu def ci ñun mooy ndondul sëñ Tuubaa li nga xam ne nee na ku may dond ci moom nga may dond waaye du alal du wurus du dara alxuraan xadiis ak sàmm nit ñi yar leen ci ay teggin ak jàngal leen bi xidmatil kitaabi wal xadiis yusbitu laa bi saabin mawrus li mu def ci ñun mooy li nga xam ne moo gën ci lépp lu nit di def ci nit mooy alxuraanul karim ku la defal nag lu gën ci lépp lu nit di def ci nit daa yelloon ci yow nga defal ko ci lépp lu gën nit di ko def ñun nag lii ñu koy defal maanaam njariñ li ci ñun la ëppee njariñ li ci ñun la ëppee ndax ñoo ci jot kóllëre te kóllëre gi ñun lay jariñ ñun ñoo ci nammantiku te nammantiku xarit ak xarit bu dajee xam ngeen ne loolu lu am solo la kon njariñ li bu ñu xoolee ci ñun la ëppee beneen bi ci des xéewal gu ñu fiy defandikoo yu ñu fiy def ñun ñooy waññeeku xéewluwaat ko kon njariñ li ci ñun la ëppee beneen bi ci des it beneen bi ci set ñoo fiy ñëwaat ngir toppaat suñu cosaan fàttalikuwaat suñu démb ñooy xool ne ah sëñ Modou daan nga toog fee daan nga toog fee di jàng daan lañ la taxawloo fee daan nga bindee fee daan nga def fee daan nga def fee fàttaliku sa cosaan fàttaliku sa kon day mel ne njariñ li ci ñun la uppé banen bi ci desit njariñ li buñ ko limé day bari lool té bu doon fukk dama wax na juroom ñatt ñi ñun ñokoy jël kon nak yeyoo ñun ñëpp ñi ñëw ngir doli ci banen bi ci def siyaare bi ñi def siyaare mom borom xam yépp nañ na siyaara siyaada rek siyaara dafa dafa dafa gatt mom teunk bu gatt la am siyaara mom day waral ak dolliku kuy dund ku bax boko ko da ngay ku fi jógee ku baax boo ko siyaara da ngay dolli ko béréb bu baax boo ko siyaara da ngay dolli ko nit ku baax boo ko siyaara da ngay dolli ko kon siyaara moom amut pertement kon day mel ne siyaara bi ñun ñoo ci ëpp njariñ ñoo ciy dolli ko ñoo ciy jokk suñu kóllëre ñoo ciy matalee ndénkaane suñu borom ñoo ciy fàttaliku suñu cosaan ñoo ciy nammantiku ñoo ciy xamantewaat ñoo ci ñoo ci ñoo ci yu baree bari yoo xam ne sama baay sama sëriñ xaalem nu cheikh rek lay wax fu mu waxee baayam sëriñam lay wax loolu lépp day tegtale ne kon ñun war nañoo jàppaat béréb bii te xam ne bërëb bii dey loo mën a doon tey milliards yoo mën a am mënoo ko jaay sa moroom dong ba mu saf ndax boo ko waxee mu laa saa yi démb yore woon dara maa ngi ñore ànd yalwaan ngay njëkkante yomp yi ngay njëkkante kër maire yi dagg fu neex dagg nangam def nangam boo nekk saa man borom alal laa léegi mun la saa yi fàtte nga sa ba nga daan soow fàtte nga sa nangam fàtte nga sa nangam mënatoo ko jaay dara boo ko jaayee ak wilaaye sa borom ma la saa yi njëkk wilaaye nag am na loo nekkoon njëkk ak wilaaya ana loolu lan nga doonoon boo ko jaayee ab xam-xam. di nuyu di leen uh, gërëm waaye di am kontaan lool ci teewe jataay bu em nii di ndokkeel ñi fi nekk ñëpp waaye di jiital ci ñoom ahlul quran ñi nga xamante ni alxuraan rek lañuy ñuy noyyi waaye jiital ci ñoom ñi nga xamante ni dañuy jàngale alxuraan ñi ma jiitu wax nañ ko bésu feet la bés bu màgg la boo xam ne ñiñ ko jegleel mooy ñi gën ci kaw suuf dama ziyaar borom alxuraan bu kenn du réeréewul ci kaw suuf muy sëñ du Mokhtar Cissé ci jaamal yal na yàlla dolli ko ay leer yéegal ko ay darajaat mu ne ma ñëpp de baax nañ waaye dafa am ñoo xam ne seen mbaax nëbbuwul ma ne ko mooy ñan mu ne ma mooy ñi jàngale alxuraan ci loo xamante ni yeneen saa sa moo ko wax xayrukum man taallama alxuraan wa allama kon sëñ Mor ñu ngi lay ndokkeel waaye ginnaaw sa jëmm ju tedd ji ñu ngi ndokkeel képp kuy jàngale alxuraan fu mun di nekk nag ci kaw suuf li tax ma ne bisu sant la fii ak weer. Sénégal dafa nekkon ci gouta gouta gogou biñ ci génné kenn génné wuñu ci kudul ahlul quran ñom ñi motax yàlla ñu sant leen ma ci lima leen defal yéen Sénégal واذكروا ni'mati التي انعمت عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياتي لعلكم تهتدون ين وا سنغال سنت لين ما خول لين لي ما لين ديفال لو خامن كينن مون لين كو ديفال بلا نكو بوغا خام دا خول كونتكست انترناسيونال بي السودان بنا بين مو جيغي ني موي ارمي با اماتول غور ارمي با اماتول مينيشن فور خيخ وا كوكاي كي بولين سن نجي جيرمون دينا خامن لا موي دوغ دمول فن nga joge fa dem libi ëpp na fukki at balbala moo fa nekk nga jóge fa ñëw Soudan atum yàlla ñu ngi ci loo xamante ni amul benn mucc nga jóge fa dem Palestine dëkk yii ma tudd yëpp ay dëkk la yoo xamante ni liñ formé ci ay sénégalais kenn xam ko ñun dem fa lañ jëmoon waaye li désamorcé bomb bi yàlla rek a ko xam at bi barakati ahlil quran ñii li ma xam ci niti alquran yu toog di jàngale daara ñii trois heures du matin la ñuy ñii quatre heures du matin di ñaan te ñaan borom alxuraan yàlla du ko du ko fomm mukk ah, alxuraan bërëb bu mu nekk sëñ Mor fii mu nekk fii garantir la pour moom waaye garantir la pour tund wi yëpp. sunu xamee jigéen a ñaar fukki at mu fi daan ñëw booba daara ji melul nii mu mel mu ni ma damay wut ay partner ngir ñu tabax daara ji mom mi doon waxtaan legi hmm? am amon ci yene lol ba yalla dogal mu joon am ngant am ay jafe-jafe waye ginaaw bi la yalla dogal li am dongo yi mag le sëñ ma maam Cheikh Mbay kokki daan wax naan ku may dimbale bay moo gaaw ndax bu sama njaboot màggee des na bëgg fu ñu ko def te des ko am kon daa mel njaboot gee tàmbalee màgg ba def lii fi nekk waaye nag ànd kook seen jëwrin muy Modou Fall moom moom mooy jëwrin daara bi bay ba man lu bari lu dongo yi def rek moo ci ànd ak ñoom te moo ci man waaye dongo yëpp yàlla nañ mel ni moom yàlla nañ yàlla nañ man li man ñoom ñëpp am yéene ji lu mu def rek doo ngay fiy jaar am na yéene ju toll noonu moom it waaye toujours da leen di wan ni maay seen jëwriñ di leen wan yoon ci lu bare bare kon ñu xamee ko noonu waaye inspecteur mi fi jógee ku am taxawaay la ku am cofeel ci daara ja yàgg am taxawaay ci daara la fi mu toll mi ngi jëm Dakar ni ndax ay xat-xat waaye li mu wax ci euh, gouvernement bi fi nekk ci yaakaar yu bari yu naan it loolu lu am am la ndax euh, démb rek am na ku may nettali koo xamante nee na saa yu masaan a daana jàngub kaamil dooru ubbi ngir ñaanal euh, réew mi changement am ci ngir yaakaar gu mu am yaakaar ci ñi fi nekk ci wàllu xam gu xam diine ak xam gu xam daara ñi fi mas a jaar kenn ku si mas a mën a tari saaru wér saaru alxuraan bu wér ci président Senghor man fekke naa ko boobu fekk na ma yew ndax jamono bi mu wàcc ci laa wàcc alxuraan 81 gi Senghor di bàyyi réew mi at moom ci laa wàcc alxuraan kon fe seetaat la may doon doon xale booba gis naa ko fekke naa ci moom lu bari kon ba Abdou Diouf ñëw ba Abdoulaye Wade ñëw ba Macky Sall ñëw ba kii ñëw waaye ñii fi ñëw li ñu man ci alxuraan bu ñu waxee dëgg nu ndongo daara yi xam ne ñi fi mas a jaar kenn ko cee li ñu am ci xam-xamu diine it ñi fi jaar kenn mësu ko cee xam ni ñu amee diine it fi jaar kenn ko cee am kon yaakaar jooju yàlla bu yàlla tas yaakaar dongo yi yaakaar jën am ci réew mi am ko ci président yi fi nekk ak ñi fi nekk yàlla bu yàlla tas yaakaar ji mukk te dongo yëpp am yaakaar kon na dongo yi dolliwaat seen i ñaan ñoom it lu ñu man ba ñu leen di sal li ñu leen bëgg a fakkastale yàlla bu ko yàlla antul ba li ñu bëgg a def ci diine ñu mën ko cee def ndax kat yàqkat yi ak fakkastalkat yi bari na bari koo xam jégg na doy te seen pexe bari na rëy na kon yàlla leen yàlla naxasal te yëkkati ñi te may leen kàttan ba li ñu bëgg ci diine ju ñu am ko waaye ginnaaw loolu it sant suñu mbokk yëpp di sant dongo yëpp njiit yi di sant suñ mbokk sëriñ daara yëpp bàyyi seen ndax tey ñu bari tey lañu weddi waaye dañ ko bàyyi ngir ñëw fekk si bis bi waaye di sant suñ dëkkandoo yëpp tàmbalee ko ci imaam aman ñan loxooma ci jiitu ci daara bay ba man la siñ jeex si waa jàkkay murit Baye Mor Fall ñoom ñëpp kenn ku ne ñëw nga teew message bi du gudd ndax añ jot na te dañoo war a dem ca baas ba eggalee jëfa kon ñiy defar añ yi bay boo ñu tàng raxas yi te taaj ko nañ leen soññ ci loolu ndax mooy tax temps bi liñ bëgg a jël ci ngoon gi ñu mën koo jël li ñuy defaat mooy di sant dongo yi te di leen dénkaat dongo yi nga xamante ne ñoo fi jaaroon te àndandoo liggéey liggéey bii néega ni daaw lañ fi taxaw ni duñu seetaan dongo yi di dëkk cib teraas ngay dëkk cib seng kon dañuy jaayante sa néeg bi ñu toj ko defaraat ko daaw tàmbalee ko ma nga ne egg na defar nañ ko ba egg na mi ngi nii defar nañ ko mel ne ni mu war a mel bay booba la jëlee sa amatul solo néega daaw tojagun ko néega ni daaw am néegu seng fi newoon ñu ne duñ seetaan mukk ngay dëkk cib terrasse ci cib seng doo ngay dëkk cib terrasse kon sa néeg bi dañ koy toj defaraat toj nañ ko defar nañ ko mi ngi nii toxu nañ ci loolu Pastef mënu ko weesu waaye loolu li muy rëy rëy rëy rëy li muy baax baax baax li ma gën a neex ci yéen mooy maanaam àndandoo nit ñi bu àndandoo ñii am doole ñi amuñu doole ñi am xam-xam ñi amuñu euh, xam-xam bu ngeen laxasaayoo te ànd na ngeen war a ànd bu boobaa du feeñ ci kenn lu ma gën a neex ci ànd bi rek mooy maanaam ànd ngeen war a ànd ba bu nit amee xew bu kenn bañ a xeeb téeméeram bu kenn bañ a xeeb ñaar téeméeram bu kenn bañ a xeeb junneem ngeen jàppale ko ba mbir ma oyof ci moom li ma gën a ñor ci seen ànd daal man mooy loolu lu mu rëy rëy ak lu mu neex neex ak lu ngeen ma man di jox lu ngeen ma man di defal loolaa ma ko gënal su ma sañoon ngeen jàppoo ànd ba képp koo xam yëg ngeen ne waajuram daa tawat te amul kàttan wala moom daa tawat te amul kàttan ngeen dajale seenu suut ak dem jàppale ko ko bu nit amee aw xew mu leer na li maam diw am naw xew ngeen yëgle ko kenn ku ne boo amee sa téeméer def sa boo amee sa ñaar téeméer def ca bañ ca xeeb dara ndax boo ko deful ñaari fan ñett di nga jënd crédit lu bon bon kër di ñaar téeméer kon nag loolu def ko foofee mu jariñ la boo ëllëgee yow nga xew la ñëpp taxawal la xam ne yow mi amoon nga pësteef ci dox googu xewat na oyof ci yow bu dee ordonnance dina jàppandi ci yow dana oyof ci yow bu dee wu naqar euh, lu mu tiis tiis dana oyof ci yow kon loolu mooy li ma gënal ci yéen su ma sañoon daal lu mën a xew ngeen góor góorgóorluwaat ci ànd boobu ku ci amoo xew na ko ñëpp yëg lu ca waaye mën a def nga jàpp ca ku ci tawat wala juróom tawat mu leer ne néew na doole lu ngeen man def leen ko ci jàppale leen ko man moo gën ngeen yëkkate ay milliards ak millions di ma ko defal ànd gi ngeen ànd doon benn rek damaa doy sëkk lan la la doyut na lii ngeen def ci daara ji doy na ma sëkk kon li ma gën a bëgg mu gën maa ñor ma ci gën di incité jamono bu ne mooy ànd gi ngeen ànd dimbalante ak jàppalante bi loolu daal su ma sañoon di ngeen ci gën a góorgóorluwaat bu baax a baax a baax képp koo xam ne bokk na ci daara ji ndax am na ñoo xam jaaruñu ci daara ji waaye bokk nañ ci daara ji bari na ñu ma xam ñoo xamante ni dañ jaaruñu ci waaye li waa daara ji jëfe neex na leen ba lu ñu laaj cotisation ne leen koy laaj lu ñuy def nañ leen ko wax lu ñuy def nañ ci seen wàll kon ñooñee it ni ngeen jàpp ni seen biir lañ bokk bu leen leen beddi ni ngeen fexe ba ñoom it lu ñu xewle ni ngeen fexe ba ñu ko ngeen di ko yëg li ngeen ca man a def ngeen di ko def bu ñu amee aw tiis na ngeen wut délégation yëkkët seen alal li ngeen man ngeen jàppale ko ca def ko ca bu dee xew bànneex noonu bu dee xew naqar noonu loolu daal bokk na ci li nga xamante ne mooy message bi ma leen di sànni mu gën maa ñor fii ma toll la ca des nag bu ñu demee ba ca baax ba bu soobee yàlla des na ko ca eggale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nañ soññee añ yi ñu nit ñi mën a añ dallu bu ko defee léegi waxtaan mën bu baax ci am mbégte. ci jo ci bokk gi mu bokk ak yéen jotaay bi. mbuy jotaayu mbégte. di jotaayu siyaar di jotaayu jokk ak mbokk mi ngi ci am mbégte bu baax di ci sant bu baax a baax di ci gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi ñu am ak xalaat bi ngeen am ak yéene ji ngeen am ak pas-pas bi ngeen am ci jàppale ko daara ji jàppalee ko sëriñ moor loolu mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm ndax kóllëre mënta weesu loolu xam ngeen li leen sëriñ moor defal loolu moo waral loolu moo waral waxtu wu nekk ngeen di dellusiwaat ci barab bi di ko nemmeeku di yeesal kóllëre googu seen diggante ak moom mboolem taxawaay bu ngeen am ci daara ji rek sëriñ moor mi ngi ko koy àgge ndax léppam la koy wax ndax loolu mel na ni sëriñ bi ngeen ko defal ndax daara jii daaray sëriñ Ibrahima Khoudia la ku ne xam na ni pas bi mu ci amoon ak taxawaane bi mu amoon ci daara ji ak yéene jim amoon ci sëriñ Mor kon lépp lu ko nit defal ci daara ji mel nga ni moom sëriñ Ibrahima xujja nga ko defal mu ngi leen ci sant bu baax kon di leen ci gërëm di ñaan suñu borom gën leen a kàttanal gën leen a tawféexal gën a yokk seeni xéewal bépp ba bépp mégat bu ngeen am ci daara ji rek ak fi ngeen ko bëgg àggale yàlla defal leen tawféex ba ngeen jëf ci lu kawe seen jot barke borom yàlla mën na ko te am na ko di gën a ñaanal sëriñ Mor tamit di ko gën a sant xam ni mi ngi ci liggéeyu sëriñ Touba ba mu jugee ba tey ci li neex yàlla neex yonent bi alayhi salatu wassalam neex sëriñ bi te moy alquran moy yengom moy ak dalam mom sëñ Mor waxtam yep ci la koy passer kon sëñ bi neena mi ngi lay sante yow sëñ Mor di la gërëm ci taxawayam ci l'islam ak ci alquran di ñaan sun borom gën la katanal gën la doli gën la doli gën laa dolli sutura ba fi nga yéene àggale liggéey bi nga àggale ko fa ba te doo ci am benn ndog bañ a am benn gaarankool tamit bi jaaxi sa yidil wujud comme jataay bi xat na xëy na liñ ci yéene woon xataay bi moo ko mayewul waaye kàddu cant rek la ak ngërëm di ñaan ñu fekkawaat ko kenn benn manki sunu boroom dolli jàmmi ci réew mi dolli naataanga ci réew mi dolli sutura ci réew mi barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf bismillah amin amin nangu leen ñaan amin amin amin amin ya rabbal alamin آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سي سي سي إبراهيم سن وسيله di waajur yàlla doxal na ñëw na fi ay yoon fii wax dëgg yàlla njabootam gu mujj gi yëpp yàlla dogal na it fi lan jaar dama koy nettali toujours ni leen doomam di jigéen de bokk na ci ñi fi njëkk a bind kaamil jigéen ñi bari nañu fi mokkale bari nañu fi wàcce waaye ñi fi njëkk bind kaamil de doomam ci la bokk keroog bi ma ko yëtee daane man lii de kër sëñ Mandumbe maa ko njëkk a am doom di jigéen ji ma ko alxuraan dundub kaamil maa ko njëkk a am kër sëñ Mandumbe ma ne ko bu la neexee dugal ko ci waañu la neex def la neex togguloo jàngal naa ko tarbiyee naa ko loolu laa ko ca tegal keroog ñaan gën a ñaanal na ko sëriñ bi mënuma koo fay moom ndax tegoon na ma foo xamante ni dañoo dem ba taalibe yi mag yeek soxna yeeg njaboot bi ñëpp xam sëñ bi dama daa ñëw fekk mu tëju bu ñu man la mu tëju dama koy euh, nett ni benn bi euh, sëñ mbay géey laa àndal muy bëgg a daara di laaj ndigal sëñ mbay jarbaatu sëñ Abdou Mim keroog bi ñëwee ci maam bu sa mënuma sëñ bi daa fatu léegi waaye baal ma man ko déedéet mag bu eggee fenn fi kenn du ko sonal mun ma déedéet yow kay saay fa jaar moom moo ko sëñ daa di woo sëñ bi téléphone mun ko mor xar mun wax mun ko na jàll si jóg di làmbal boppam bunt bi ba tijji bunt bi ma jàll si yow yow du la tëju koo xam lu mu xat-xat daawul ba ci Ilimane Sall mi keroog bi mu faatoo ñu ko yóbbu tubaab dañoo génn Thiès mu woo ko téléphone mun na maa ngi dem pare bi xaar leen keroog euh, waxtu une heure daanaka lañ egg Touba Modou Fall ngi ni fekk na dem na ci rob keroog ak gaa yu bari ci koñ bi fa la toog dinu xaar dinu xaar ba nu si mu si ma mu jullee ko ba noppi ma ne ko sëñ bi naaj wi tàng na tosbaar joon na te naaj wi daa tàng te màng bàyyi suñu ameen mii mu dem te yow te ñu yeewi la mun ma déedéet xalaatuma ko lii rek laa ko defee ñëw ba ci buntu xabru bi toog di ñaan di joxe ñaan ñuy ñaan ba bi ñuy génn jumaa ji la ñuy julli tisbaar bi ñuy génn bàq ya la ñuy julli tisbaar ci naaju tàng jër keroog mbooleem oto yi demoon jóge Cees yëpp dañuy sëñ bu mel nii ñu ngi ko door a gis ndax yëg ak yitte moom la kay woon ñëpp sëñ bi ni mu meloon ci taalibeem ni mel ci taalibeem yëgg ak yéene ja dafa jéggi dafa dafa dafa dafa kay dafa suñu njort dama daan ñëw mun ma ndax am nga nangam man ko déedéet mun ma indil bi nga am na yoo xam ne ba tey maa ngi koy jëfandikoo ci moom la jóge bari na lu ma nit joxoon ma bakkoog ngir moom ndax man mooy sama wasila njabootam gi it noonu lañ mel ci man moom nag moom da cee raw moom suñu Ahmadu mi lii séentuma woon ni dana ñëw waaye ndeke damaa jikki-jikki rek gis ko mu ñëw ndax man waxuma ko waaye yëg gi mu am sëñ Ibra noonu la meloon ci ak taalibeem lu ma ñaar fukki at gisut waaye saa yoo ko nuyoo ni ko mën la diw wala nga nuyu ko ni ko diw moo laaj la seen waa kër yëpp ana diw ana diw ana diw ana diw loolu ak yéeg rek moo ko mën a maye. nit nag lu mu mën a am ci kaw àdduna lu mu mën a mel te amatug yëg rek amul dara nit ñi am nañ fulaa fayra ju toll ne boo leen yëgutu ñu toog bàyyi bàyyi la waaye sëñ bi dafa amoonu yëg ci taalibeem ba nga xamante ni ñëpp dañ daan maase du ko wax koo xam ne sëñ bi boo demee doo bëgg mbàyyi la man dama daan dem mu bëgg maa teele man ko sëñ bi dee man du ma la sonal dimbalé ma rek bayam ma ay doma yeddoli su ma la téré nga lànk man ko dir manga bay rek ma dellu ñaanal rek ma dem dama naan xëccu mom dem bàyyi ko ngir xam cioni mi jankontel mangu dem ba eh, làq juroom ñen fukki at daanaka nga ñew señ bi diko téy ci yenn waxtu yi dafa miti waye sa yo dem du téy da lay téy téy téye ba na nga mujj yëm ci mom kon man aw ma fayam moom sëñ bi lol loolu na bay bangon ngoon waaw nañ indi añ loolu la doon demandé. waaw nañ bàyyi ba ngoon bu ko defee loolu ñu xam ko bu baax a baax sama dégganteeg sëñ bi daal moom dara doxu fii dara xaju fi bari na nësër yu mu nësëroon yoo xamante ne xëy na mënatu ko ndax euh, ak mage ak ñàkk faa mën a waaye moom leer na man naññ ni bu doon xam di man ba suñ mu toll nii euh, ragal daal ni su su daal dana dana gën a fi ma nekk dana gën a kawe su njot moom loolu moom ci may sikk sàkk moom waaw kon nag ñi ngi ñaan suñu borom gën ko fee bàyyi te te te may ko wér bu wér wér suñu borom bàyyi leen barke ma bàyyi leen xam-xam ba bàyyi leen man nga bàyyi leen jëf gëm daan jëf ci aw yiw ndax toog nañ ne mun ma man de li ma yoratu ci jumaa yi laa koy def ak ci daara yi ak noddukat yi jàkka yi waaye duma ma dajaleel xale yi dara la ma leen jox jox naa leen amul dara lu may dajalee te àdduna lu ma am jàngalekat alxuraan yi laa koy jox jumaa yi ñi eh, imaam yi ñuy noddu ci jàkk yi koo xam daa nga ñoral ma juróom juróom-ñaar téeméeri bëri ko wala juróom-ñett téeméeri bëri koy dugub di ko joxe di ko joxe di ko joxe ba sa kër da dem mujj dem gaar ba di jënd dugub sa kër lekk loolu def na ko ba tey dama naa leen at mu jot man tonu la ma daa damay daa njëkk jikki ñun ma sa kër sëñ bi yónnee na la tonu dugub su weeru koor ñoom ñun ma sëñ bi yónnee na la suukar sa kër ñaari saaw sa sëriñ ba sëñ boo xam moo la daan jariñ la koy la koy jox joxuloo ko kooku sëñ bi xam ne yombut kon nag ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën ko fee bàyyi lu yàgg yàgg yàgg yéen mu bàyyi leen fii te ngeen dese barka ba ak xam-xam ba ak njariñ la yàlla yàgg lool ci barka ba wax dëgg yàlla sama xol seet na guy ci yéen bu sëñ ji lu mu doy waaye sëñ ji ñëw na ñëw nga Ibrahima Ibrahima a ngi fi moom it fi la jànge waaye li muy doon doon xale noonu la amee kóllëre ci daara ji ñi gëm ñi gën a am kóllëre ci daara ji ci la bokk bu ñëwee du du wane ne sama doomu sëriñ day laxas ndiggal yi ànd ak dongay ne ci liggéey bi lu jafee-jafe la dam mooy sama doomu sëriñ mënoon naa ñëw jaay ma ceex war ma waaye du ko def bu ñëwee day laxas ndiggal yi ànd ak dongay war ni fii laa li ma jële fii laa ko jële kon mooy mën ñu ko fay waaye suñ muudu mi it noonu na ko xam bu baax a baax suñ muudu moom suñu diggante yàgg naa leen ko wax toujours yoo xamal leen mbàkki mbàkki yi ma jàngale bari na waaye ku ci ëpp góole yo yo ni moom yombut a gis li mu am li mu li mu wax nag ni maanaam sawfa cofeel moo dox suñu diggante rek loolu rek laa leen a xam moom cofeel moo dox suñu diggante kon nag yàlla na sax li ci des nag nañ ko bàyyi ba egg ca baax ba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nañ defar aji ñu mu ñëw ndax mi ngi naan